ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2022 bile caravane sax ñoom ñoo demoon pour taali li nga xam ne moom moo nekk courant ba sa bile dëkk te mu nekk ci commune bu Kër Samba Gueye le premier magistrat sax ànd ak bile délégation ndax nag dugal na ci loxoom bu baax a baax mu nekk le maire ab Ablaye Ndiaye dëkk bii di Thioyen Niombato depuis l'indépendance ba léegi président bu fi munta jaar sàkku nañ ndimbal pour am li nga xam ne moom mooy wàll courant waaye nag mu teleen ficc ci ayeb président la république mu dénk ki nga ne moom moo nekk le directeur général Pape Demba Bitèye moo tax askan wi yeewoo fii si Cooyeen Ñombaato kontaan bég lool xalif général bi nga xam ne moom moo nekk fii si Cooyeen Ñombaato moom sax làq na lu tolloo juróom-ñeent fukki at ba jàpp téeméeri at lii président de la république def si bile dëkk kontaan na si lool ndax nag mosul fa am ñaanal nañ ko bu baax a baax rawatina nag le directeur général si biir waxtaan wi sax ki nga xam ne moom mooy le directeur général Pape Demba Bitèye Askanwa, wa président de la république si rawatina nak délégation bi kiko le délégué régional monsieur Aymirou Ndiaye andak délégation bu takku bi le délégué général sax ba mu Rafet kàddu yi lu bu baax li nga askan wi bile dëkk sax askan wi ne depuis wéri koor bi mu taxawé ba légui lu tollok ñaar fukki ak ñaar Yo xamné dem ko le directeur général ba légui mu nelen. di le directeur général général liñ ko denk askan wi fu mu munta nekk biir Sénégal ñu am courant waaye nak si bile ndaje prox ndollu na si ñaaxaat askan wi ne leen nak nañ jox majorité le président de la république fait sa assemblée nationale si ndigalu directeur général yi kaddu sax la directeur général bi yëkkati wàllu courant bi doyul ñu bateau tey lañ ko mettre en tey dugg na doyul ñu bateau tey tey tey tey liggéey bi noppi na bu ñu paree léegi dañuy jóg dem taal courant bi dugal ko ci biir dëkk bi lii nag bu amee il faut ñu expliquer fan la jóg euh, programme yi nga xam ne ñi ngi dugg ci dëkk yi di ko taal

PAU 2 mooy programme tactique universel phase 2 moo taal doyen ñëwaat am na benn programme bu ñuy wax PAMACET boo xam ne mi ngi ñëw am na yeneen dëkk yu koy yu koy yu koy taal loolu mooy vision du chef de l'État beneen bi ci tegu mooy li nga xam ne programme bi taxaw na directeur général dafa créé benn commission tuddee ko urgence des villages nouvellement électrifiés mooy lan mooy nañu waa dajale bi da ngeen dem dëkk bu ngeen taal balaa ngeen di ngeen dëkk bi da ngeen defar pompes yi nga xam ne nii nit ñi moom la ñuy jëriñoo bu ko defee bu ngeen taalee dëkk bi ñu mën a jëriñoo courant bi ci saa bañu talé nak lampu mbéddi tek nañ ci dugg ci kër yi waccel nañ leen courant yoyale kër sax ñu dugg tal lampu ya borom kër ya tal lampu yi ya, content lool bi le reportage ki leen ko doon defal ma kayre ndjay ci sokon tv ñu ngi leen di jox dig dajé ci yenen xew ci sénégal ak sa bitim réew